alal jiin bismillaay ma dee ci door maam góor njaay sëtub maram jiin bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ko réew soow booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na jam sur nu jàkkaar lool arbitre bi ngi wax ak ñoom di leen wax li nangu ak li bañ nee kaay leen jam sak balañ wa balañ mo ñu won ginnaw mo nga nonu arrivé nga wax ak ñom di leen lakh li lamb nang ak li lamb bañ kat ap jëlu la wëlbët gàng moo gën a leer ku ndor mu daanu ya koy yëk ma ngay laaj ay siisam ndax paré nanu ma ngay laaj ñaari mbëri ndax paré nanu arbi sifflé na seen diggante ñoom ñaar balañ mo ñu won ginnaw jamtu leen jàkkaarlool balañ cokkaas na bala ñoo ngi def déplacement latéral dugalaat na droite tokkaas daw nañ daje ñoom ñaar la mooy xew plaqué doole doole waaw waaw balañ jams balañ jams bala ñoo ngi forcé da koy génne oh prise ba la moo xew nan déglu arbit nan déglu arbitre bi nan déglu arbitre dara xewut nan déglu arbitre nan déglu arbitre bi nan déglu arbitre dara xewut nan déglu arbitre yaaw nan déglu arbitre daan na ko nan déglu waaw nan déglu arbitre rek moo gën a wóor nee na leen taxaw damay ragal arbitre sifflé avant am am waaw ma nga noonu position bële uh-huh. dañ koy valider mais position bi mu nekk mënul daan looloo tax dëgg la ma nga noonu ndeysaan eh. jam sak balañ à gauche jawaat na jël ko buub bi baatee luy xew gàddaa bi wala James koy daan waaw waaw James daan na balañ balañ respecté woo James balañ daan na James waaye balañ daan na James yow James da koy daan na balañ balañ respecté woo James balañ daan na James waaye balañ daan na James yow balañ daan na James